salaamaaleykum donc euh, ñu ngi ziar di nuyu ñëpp ginnaaw bi ñu présenté woo pare Ndiaw Macodou Ndiaye laa tudd donc neef nekk chef de centre maison de la femme entrepreneur bi nekk fële ca Diourbel nga xamante ne euh, seen mbokk le directeur de l' emploi Pape Modou Fall moo ko fa implanté donc muy yëngu ci wàllum formation ci jigéen ñi. Euh, formation yëpp bépp formation boo xamante ne jigéen daf koy def muy saponification muy javelisation yi nga xamante ne moom lañ fi indi tey muy pâtisserie muy transformation céréale muy transformation fruits et légumes muy teinture euh, wàllum cuub muy aviculture wàllum yar ginaar donc muy microjardinage wàllum mbayum dër euh, muy li nga xamante ne aussi moom mooy coiffure di couture yooyu yëpp maison de la femme da koy def donc tey nag ñu choisiroon Euh, ñëw ci Tooki gaar donc ak yenn village yi nga xamante ne euh, wër nañ ko mu mel ni Nebbe ak Lamaan donc ñu indi leen li nga xamante ne moom mooy euh, saponification ak javelisation maanaam defar saabu ak eau javel donc tey ñu ñëwoon fi tey def fi ñaari fan démb lañ ko commencé donc tey la ñu jeexal donc ñu joxe diplôme yi ngeen gis li nga xamante ne moo nekk ci kaw taabul bi aussi ñu am mbégte aussi fekk fi ki nga xamante ne moom mooy suñu suñu xarit donc nekk le maire de Toki donc monsieur Moussa Thiaw donc mu dalal ñu moom aussi donc jàpp ci li nga xamante ne moom mooy joxe attestation bi def def présence am aussi donc ñu ko ciy remercier bu baax a baax a baax mais aussi maison de la femme entrepreneur donc ci njiital euh, man mii di di wax di njaw ma koddu mais aussi ci ci njiital suñu kilifa di Pape du Fall ñuy remercier ñi nga xamante ne ñoom ñoo assisté tey formation bi mu toll mu tolloog cinquante cinq femmes donc nga xamante ne ñoom tey mën nañ ne cinquante cinq femmes yi kenn koo ci jël tey euh, maitriser na li nga xamante ne moom lañ ko jàngal diggante démb ak tey donc aussi ba mu war cee mën a am diplôme donc loolu moo loolu moo nekkoon kàddu yi d'abord ñu pare ñu jox ki nga xamante ne mooy monsieur le maire moom aussi donc mu sànni ci ay ay kàddu donc jërëjëf. Euh, di la nuyu yow ak équipe bi nga àndal yëpp te bàyyeekoo ci maison de la femme entrepreneur bi nga xam ne le directeur de l'emploi Pape du Fall moom moo ko installé. sunu yaay yi nga xam ne ak sunu jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo bokkoon ci formation bi. Mm. di leen féliciter di leen jaajëfal bu baax euh, di sàkku ci ñoom li nga xam ne jàngal nañ leen ko euh, ñu jàpp ko téye ko te ba pare aussi mën ko reproduire ndax euh, formation yi bëri na lool nit ñi ñu ngi koy def jigéen ñi ñu ngi koy def mais suivi bi ab reproductivité bi da ngay gis ne dafay manqué liñ la jàng nag tant que mokkaloo ko ba mën di ko pratiquer wala di ko jàngal ñeneen dafay mel ne des na hmm, waaw dafay mel ne du am jeexital te dafa war a am jeexital c'est bien ngeen ñëw ñu jàngal leen nu nuy defaree saabu ñu jàngal leen nu ñuy defaree eau de javel nga xam ne ay produits la yoo xam ne au quotidien yéen a ngi koy utiliser yéen ñëpp koy jëfandikoo soit da ngeen dem jënd ko ci boutique bi wala ngeen dem marché jënd ko kon suñ leen jàngalee ni ñu koy defee ba ngeen mokkal ko war ngeen mën a dellu ci village yi nga xam ne moom ngeen jógee maa ngi fi gis waa Laman maa ngi fi gis waa Nebbe maa ngi fi gis waa Tooki Séeréer et cetera loolu war ngeen mën a dem ci seen gox-goxaan yooyu nga xam ne fa ngeen jóge ngeen regroupé wu dajaloo xool yenn initiative ngeen mën a def ngir ñoŋal lii ñoŋal ko mooy di ko def def gu sax ba nga xam ne au delà de xam-xam bi dafay dem ba nekk une activité créatrice de revenu maanaam di leen jural koom ci fi nga xam ne moom ngeen nekk loolu nag ñun pare nañ pour jàppale leen ci ah di remercier bu baax aussi euh, encore une fois euh, le directeur de l'emploi ci action yi nga xam ne moom lay def ñun dañu jàpp ne képp ku dugg tooki jëmbat fi benn garab ñun nga ko def ñun nga ko defal képp ku dugg tooki def fi lenn loo xam ne luy avancé loo dëkk bi ñun nga ko defal nekkuñu ci politique gu par parloo di xool ku ànd ak ñun wala koy xool ndax nit ki yëgal na ma wala yëgaluñu déedéet ñun dañu jàpp ne comme tool bi suñu tool la képp ku ñëw samp ileer di ñu bàyyi rek kooku moom jaajëfal ko rek lanu nu kon ñu ngi leen di jaajëfal di leen remercier ah, di wax ne bëgg nañ ci bu baax di leen yóbbante kàddu yi cant ak ngërëm auprès du directeur général de l'emploi Pape Modou Fall gis nañ aussi d'autres actions yoo xam ne def na ko de l'autre côté à ngufoor loolu aussi ñu ngi ko ci remercier di leen jaajëfal ci formation bi maison de la femme entrepreneur de jurbel amal ak yéen ci diiru ñaari fan euh, mu nekk formation bu am solo bu ñu te installé maison de la femme entrepreneur de Diourbel c'est pour ñu mën a fexe ba jigéen ñi Euh, mën a demal seen bopp ci wàllu koom-koom li tubaab di wax naan autonomisation de la femme loolu mooy suñu objectif principal donc kon euh, bu ñu sañoon dëkk bu ñu jaar def formation bu ñu jógee foofu formation boobu waa dëkk bi dinañ ci farlu ba continuer ko mais mu bañ a nekk rek lu ñuy nettali naan defoon nañ ko fi mais mu nekk loo xam ne da ngeen ci jàpp boole ko ak li ngeen daan liggéey yokk ko ci mu gën a leen a jural koom-koom parce que gis ngeen niñ ko defee Euh, formation bi du jël temps bu bëri ba noppi tamit du yàq liggéey ci sa liggéey du la ci yàqal dara ba noppi méttiwul en même temps boo koy defar ci sa kër gu sedd ngay toog defar li ngay defar boo paree nga jaay ko te produits yi ñu fi teg nii tey jii euh, yéen bu ngeen koy jaay du ngeen soxla dem marché di ko jaay mais yéen ci seen biir yéen a koy jënd bu ngeen ko jëndee ci seen biir parce que da ngeen koy jënd ca marché ba wala ngeen jënd ko ci boutique ba au lieu ngeen koy jënd ci boutique ba nag wala ca marchand ba da ngeen koy jënd ci biir groupement bi mën ko jëndee ci groupement bi bénéfice yi nekkaat ci biir groupement bi ngeen utal ko seen keesu bopp di dajale seen ay bénéfice par mois bu yàggee dina nekk benn somme boo xamante ni dina nekk lu am solo ngeen mën cee xool dëkk yi ngeen dëkk lan ngeen fa yittewoo yéen jigéen ñi ngeen jënd ko ci defal ko seen bopp parce que tamit di la may jën chaque jour jàngale ni ñuy nappe moo ko gën lii yoon la boo xamante ni bu ngeen sukkandikoo te bañ ko xeeb dina leen mën a jural koom-koom parce que dañoo def expérience bi ci yeneen dëkk gis résultat yi muy joxe am na dëkk yoo xamante ne ni tey jii chaque mois mën nañoo def minimum bénéfice cent mille francs ñaar fukki junni par mois mën nañ ko def minimum lu mu tuuti tuuti te loolu boo ko defee pendant dix mois rek da nga am sa un million de francs bénéfice te un million bu ngeen ko amee mën ngeen cee def seen seen lu ngeen bëgg jënd mën ngeen ko cee jënd loo xam ne jigéen ñëpp koy bokk ko ko soxla mën koo utiliser bu ngeen paree denc ku soxlawaat mën a utiliser donc loolu lañ ci bëgg mën ngeen tamit créer ci seen beneen activité boo xamante ne nii mën naa jur leneen ak leneen ak leneen donc kon nag dañoo bëgg ngeen gën ko fonk gën ko respecté donc ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah te yéen ñi ñëwee dina defal formation bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm parce que liggéey bi rafet na am na solo jaar na yoon ndax ànd ngeen ak ñun ci teey ak dal ba won ñu ban am ci xam-xam ñu leen ci sant bu baax daal di sant it Pape Modou Fall di ko ñaanal jàmm li bëgg moom moo ko xam yàlla na ko yàlla yombalal lépp kontaan ndax gis na ni muy taxawoo jigéen ñi ñu ne ñu bëgg ku ñu jàppale ci suñ commune bi parce que suñ monsieur le maire bi docteur Moussa Thiaw macha allah ku baax la ku oyof la ku bëgg a jàppale ay nitam la kon nag buñ gisee kenn koo xam ne mën na koo jàppale si ay jigéenam ñu ni dañuy takk si foofu loolu rek moo nu ci tax a bokk liñ ciy sàkku ak liñ ciy ut yàlla suñu borom yombal lépp ñu ànd liggéey bi rafetal ko ba am ci lu kawe suñ njortu di ñaanal suñu monsieur le maire yëpp docteur Moussa Thiaw yal na ko fi yàlla yàggal yàlla oyofal yen bi lim yéene ak lim mébét yëpp suñu borom bàyyi ko fi ba mu def ko dara yaay Sidina Mouhamed kon daal ñu ngi tàllal loxo encore une fois Modou Pape di ko gën a tàllal loxo di ko wax daal dëkk baa ngi nii toogee ngi nii mm. ñi ngi fexee yaatal waaye moom it nañu jàppale si ay moyens ba mu mën a gën a mën a yaatal mm. ndax euh, yaatal yombul mm. ndi kii boo bëggee ànd ak moom it euh, vraiment il faut nga am foo xam ne fa nga koy féetee pour man koo gën a jàppale pour mën a jàppale ñu àndal bari na loo xam ne soxla nañ ko te mi ngi koy def si yeneen communes yi soxla nañ ko si commune Tooki kon nag euh, ñu ngi koy tàllal loxo bu baax a baax di ko ñaan yàlla yokk fanam yokk wéram ba li mu bëgg si Diourbel yàlla defal ko asalaamaaleykum